xaw ngi nii sax xaw am dara. lii après mbokk internet yi RSTV Rufisque Sénégal ñu ngi leen nuyu tey nag ñoo ngi fi nga xam ne mooy stade Ngalandou Diouf di fi xew yéeme na doy na waar di fi xew nag diggante giif ak Thiawlène seen demi-finale match bi malheureusement nii la euh, jeexe bataar bu metti moo fi am xeex bu diggante digganteeg euh, ASC giif ak ASC Thiawlène Bassirou ne sax am na ñoo xam am na quelque blessés tamit am nañ ay euh, décès mais xamaguñu exactement ñaata nit gaañu kon boo ko ñu taxaw ak sunu grand rek laaj ko nu mu gisee li nga xam ne mooy li fi xew tey ñu ngi lay nuyu ko. waaw ça waa ñu ngi lay fay ku baax noo def naka coono yi mbaa yéen a ngi si jàmm ngi leen di ziar bu baax a baax waaw di naxarlu nag li nga xamante ni moom jot na fee am tey jii. ndax euh, stade bi dafa doon loo xamante ni patrimoine Sénégal la du ma ne patrimoine u Tëngéej parce que patrimoine du Sénégal la bon dinañu metti nag parce que euh, warul woon a mën a demee nii daal ndax loo xamante ni lu ñëpp bokk ñëpp dañ ko war a sàmm c'est pas parce que dama fi nekk euh, pour UCG naam sax nekk naa fi pour UCG que UCG lay liggéey te ñun des fois ñun ñooy ñëw renfort ci estade bi pour nettoyer ko xool li nga xamante ni war nañ leen ci mën a jàppale ñu jàppale leen ci mais beneen aspect bi mooy dama doon doomu Tëngéej juddoo Tëngéej yaroo Tëngéej màggee Tëngéej am suma équipe boo xamante ni moo ñuy représenté Tëngéej muy TFC di fi recevoir en dehors de cela nawetaan yi fi la ñuy nekk suñuy rakk ñoo ciy football suñuy jalwaat suñuy doom te lii am na ay jamono yoo xamante ni tëjoon na fi mu jaral ñu loon lu nekk ñu organiser fi ay marche signer fi ay pétition organiser fi ay réunion lu nekk pour à ñu mën am foo xamante ni euh, bu nekkul stade sport sax dina nekk stade boo xamante ni am na ay mesures yu ay normes yoo xamante ni dinañ fi mën a recevoir yàlla dimbali ñu am stade bu mel nii TFC di fi recevoir mais tey jii fan lañ jëm yaaxal nañ stade bi yaaxal waa Tëngéej yaaxal waa Sénégal ci loo xamante ni mënoon naa ñàkk muy situation nag boo xamante ni déploré nañ ko à cent pour cent on déplore ça parce que nous sommes pas du tout contents ci li nga xamante ni ñoo def lii am na loo xamante nag bu amee moom wax dëgg yàlla nga doon doomu dëkk bi nekk ci dëkk bi doo mën lu dul ñëw bokk ak askan wi na xar bi loolu moom moo tax ñu toog fi ba heure bi parce que depuis match bi commencé ba léegi noonu ñi ngi fii bi histoire am ñi ngi fii calmé nañ def nañ lu ne mais aussi am na loo xamante ni moom daal mooy loolu yenuwul maanaam à l'heure actuelle nag bon ñun en tant que UCG dañuy ñëw pour xool li nga xamante ni moom lañ war a mën a apporter suba ci balayage stade bi ak nettoiement stade bi parce que duñ ko bàyyi noonu ñun ñoo fi nekkal askan bi UCG ñëwun fi nag au nom de notre coordonnateur monsieur Daouda Thioune bi nga xamante ni moo yilif département de Rufisque yëpp comme que dafa sori fi mu nekk ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo fi jege ñu nii nañ toog xool su qu'on pour demee mais ñi ngi koy informer di ko woo téléphone di ko expliquer situation yi ni mu demee depuis lors xam naa demee dinañ ci jël ay mesures yoo xamante ni le matin de très bonne heure nous allons débarquer ici avec nos équipes de balayage équipe de nettoiement bi yëpp ak oto mbali ñu xool lu ñu mën a. mais est-ce nawetaan tey am na sens tey du demee ba ñuy xeex di xuloo te nawetaan. parce que nawetaan bu njëkk nit ñi dañ daan football ñu gañe la vainqueur bi ak vaincu bi yëpp ñu ànd def benn bloc dem la nuit ñi ñi gañe ñëw si ñi leen gañe ñu toog def benn fête naan ay boisson fuural waxtaan xam nga foo ree ku nekk ñibbi nawetaan bu njëkk da daan boole. mais la nawetaan d'aujourd'hui rassembleetul mais dafay def divergence nawetaan bi ñu nekk nii dama ne pour man nawetaan amatul sens ci àdduna bi rawatina Sénégal gi ñu ne vaut mieux ñu bàyyi ko te concentré wu ci li nga xamante ni mooy championnat yi ku bëgg a football nga jéem a dem dans les centres de foot wala nga dem ci championnat yi jéem a wane foofu sa talent génn mais nawetaan moom à l'heure actuelle où som moom wax dëgg yàlla amatul valeur quoi amatul benn valeur parce que loo xamante ne booleetul lu dul day féewale vaut mieux ñu bàyyi ko waaw. macha allah loolu dëgg la loo xamante ne bu njëkk ba da doon boole léegi booleetul ay xuloo ay xeex ay rayante mieux vaut ñu bàyyi ko macha allah am solo ñu ngi lay kontaane jaajëf ñu daal di doxantu rek xool quelque ñu mën a waaw ñu ngi taxaw ak euh, ki nga xam ne mooy monsieur le maire ñu laaj ko rek li mu gisee li nga xam ne mooy euh, li xew léegi monsieur le maire ñu ngi merci. Euh, Euh, dama ñëw fii en tant que maire de la commune de Rufisque Nord mais aussi en tant que vice-président de l'organe euh, de gouvernance du stade parce que c'est important parce que euh, pour ñu tijji stade bi pour intérêt jeunesse su Tëngéej dañu mettoon en place un organe de gouvernance organe de gouvernance boobu maire Daouda Niang mooy vice président bi mooy président bi man maay vice président bi moo tax euh, bi ma déggee léegi li am fii si sama oto mane naa ñëw nemmeeku li fi xew mais vraiment situation bu déplorable la parce que xaaruñu ko woon ci jeunesse bi parce que ñun ñi nga xam ne ni ñoo nekk si bopp municipalité bi muy mairie ville muy mairie nord muy yeneen maire yi parce que au niveau de Rufisque nous avons mis en place une intercommunalité donc tey dama fi ñëw représenter maire yëpp alors di len masu yéen jeunesse di masu famille bi nga xam ne nii alors euh, ñooy waajuru ki fi jóge yal na ko yàlla xaral àjjana yàlla yërëm ko en tout cas lii dañu ñaan mu yem fi quoi euh, parce que c'est une situation boo xam ne ni doy na waar visité naa fële mais dugg sa mënuma fa ndax xet ak tàngaay alors ma ñëw aussi si police bi gis mu mel nii vraiment ah xaaruñu woon lii de si jeunesse bi waaw ñu woon lii si jeunesse bi donc na fi yem alors euh, te il faut que quand même euh, qu'on mette euh, davantage l'éducation la formation citoyenne c'est important waaw lii daa xaaruñu ko si jeunesse bi waaw dama mënul wax parce que situation bu déweer la fi fekk waaw mais au nom de l'intercommunalité au nom des maires des communes de Rufisque ñu ngi leen di masawu waaw euh, yéen jeunesse yi xam naa am na am naa lu leen métti ah je vous ai vu am na lu leen métti ñu ngi leen di masawu alors di wax ni na fi yem rek waaw euh, na fi yem waaw euh, du ma sori quoi. monsieur le maire en tant que monsieur le maire tey jii bi nga ñëwee gis affaire bi tey jii. Hmm. lan nga en plus lan mooy sport dëgg-dëgg. waaw sport nag alors wax naa ko ñun ñi nga xam ne ni ñoo nekk à la tête des municipalités suñu rôle mooy développement. mais développement munul am te xol yi nekkul benn développement mënul am te paix sociale amul moteur bi nga xam ne ni nag alors euh, yaakaar nañ ni mooy def développement sport la parce que sport rek mooy boole waaw sport rek mooy incarner des valeurs donc bu ñu demee ba sport vraiment di def lii alors dañuy dul xamati fu ñu jëm waaw euh, moo tax daa si gàttal dañuy ñaan yàlla rek mu yem fi waaw ñu waxtaan nag ak jeunesse bi waaw sensibiliser leen waaw éduquer leen pour yu mel ni bañ am métti na trop surtout ki si dee la xam nga tey ay waajuram am na lu leen métti waaw lu leen métti donc euh, yàlla na ko yàlla xalaat àjjana yàlla ko yërëm ko je vous remercie boo xoolee du ñu ay sportif ñun seetaan ñu fubal mais nawetaan dafa neex nga ñëw ba sa yite ñëw toog savourer ko nga kontaan mais tey lii am si stade bi ni moom moo fekk sama place rafetlu ma ko kenn rafetlu ko benn doomu Tëngéej rafetlu ko tey jii boo xoolee ñun dañu joxoon dañuy joxoon cër parce que Tëngéej dañ dañ fa am loo xamante ni beneen stade amu ko da nga doon dégg ay Pikine ñuy xeex da doon dégg feneen ñuy xeex mais Tëngéej loolu raar na fi te gëj na fi ba jamono yi passé muy am kenn nawatuñu kenn respecté tuñu bàyyi ñun dañuy fo rek tey jii li ngay gagné yëpp bu baree ba bari matul 500000 wala bu ëppee 500000 si lay yem. mais kon jarul ñu siy faat ba kenn jarul ñu siy def loo xam ne rafetul tey ku nekk war na lan naxari lii au nom de Dieu ku nekk war na la naxar bëgg nañu dara moo waral ñu ñëw fii di jaayante lañ ciy am as néew dañuy dem yóbbul ko seen papa wala yóbbul ko seen yaay wala yàlla may leen ëllëg ñu dem signé contrat boo xam ne da naan man sama koñ am na pro nga koy tiitaroo di ko sagoo tey nga ñëw yàqal lii mais rafetul loolu rafetul gars yi na rafet waay. waaw njool mi njool mi. waaw na rafet merci beaucoup ah. waaw ñu ngi taxaw ak euh, jaaji moom tamit mu bokk si ñi dirigeant yi fii ñu laaj ko rek nu mu gisee li nga xam ne mooy li xew jaaji ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu di la ziar di la masalu coono tamit tey sa sa journée bi vraiment teel masawu coono yéen tamit journal tey euh, gis nañ seen liggéey tamit ni mu méttee si bi yëpp ngeen déggu ko nekk fi ba heure bi ñu ngi leen si masawu coono d' abord vraiment d' abord maa ngi. jaale d' abord liñ de décès yi am di ko métut lu vraiment loolu kenn bëggu ko kenn ñaanu ko yàlla kenn ñaanu ko yàlla waaw man moom yàgg naa alerte lii nii li am nii yàgg naa ko alerté te ne ma ko alerte mooy depuis daaw depuis nawet naa ni passé laa xool ni violence dafa bëri dafa bëri trop trop trop si laa initié woon ne naa jéema a organiser nawetaanu vétéran boo xoolee def nañ première édition bi daaw pour yee xale yi mag ñi dañ daan fobale fii quartier yi di daje ñi dendee te xeex du am dara du am pour yee jeunesse bi léegi ni football nawet naan mën nañ ko def ku nekk kafre dem dara du am sànni xeer boo gisee boo bëléegi ba démb mooy jox exemple demb ñun ñu ngi organiser si nawet naanu vétéran yi ñaar yu lébu gi ak ngañ sàmb mais lu te te ñu kaf amul amul service d'ordre amul dara suñu biir kaf ba benn heure bi dara amu fi mais lu tax loolu tey nawetaan jeunesse bi mënu mënuñu ko def toll na foo xam ne loolu mënatul ne te lool bu mënatul ne na dañu war a toog vraiment toog xoolaat sunu bopp li am ni nii yàqaluñu nawetaan rek vraiment yàq nañ petite catégorie yàq nañ euh, xoolal équipe suñu équipe bu championnat bi Tëngéej FC ak ak Azel ak ak ak ay salteke ak ay vraiment ñi waron compétir fii yëpp ñu war a toogaat lu yàgg te toog nañ fa ay huit ans sept ans amuñu stade fu nekk ñu fay gi ñu def góor góorgóorlu ba am lii ñu waroon ko sàmm vraiment man daal duma fa nekk naan kii la wala kee maa ngi continuer si lancé bi ma ne woon di alerte jeunesse bi nañ delloo si waat seen xel ndax sport mënoo ko def te kat doonu la gañe mais toll nañ foo xam ne léegi ku ñu gañe mu xeex ku ñu gañe mu xeex mais loolu loolu war nañ xoolaat ni loolu loolu kon buñ ko naree continuer nañ ko arrêté ñu arrêté loolu ah fekkee ku ñu gañe nga xeex yàq ah yi passé tey si stade bi la mais fan yi yow gis nga ay kër lañ doon yàq ak ay oto yoo xam ne seen yoon new si ak ay boutique tey xool li ñu def yàq nañ pelouse bi ah li ñëpp doon ragal am na léegi pelouse bi bu yàqoo rek mooy sefini ndax pelouse bi ñaata million lay jar ñaata ah pour nga defaraat que c'est dina difficile trop parce que sax li ñu xaw a sobe mooy yàquñu lépp lépp ay parti lañ moo xaw a kii xëy na boobaa bu ñu réfléchir nañu xool nuñ koy jéem a rattraper pour que ay Tëngéej FC ay Asel mën a continuer seen i championnat loolu laay ñaan autorités yi ñu concentré sur loolu xool nu ñu defaraate pelouse bi ba ñu mën a continuer mais daal lii am nii vraiment ñu ngi koy lu bu baax a baax di ñaan yàlla lii moom yàlla na gëj ci Tëngéej c'est la première fois yàlla bu mu fi amati ba mukk waaw di lancer message jeunesse bi nañ delloo si waat seen xel bu dee football nii la def bu dee tournoi nii la def bu dee làmb ñu vraiment war nañ xoolaat daal suñu bopp quoi waaw si foofu rek yow ne football fair play la mhm. mais loolu tey fair play du demee ba amatul ñii di xeex di xuloo di jafante lu ne kon je me dis que franchement parlé lan mooy rôle sport lan mooy rôle waaw loolu loolu loolu gisee vision bi ma amoon ba organiser nawetaanu vétéran yi mais mi ngi am mais boo xoolee ay derby ñooy am ay quartier yoo xam ni xam nga ñoo dendee di football fii démba maa lay jox exemple démba ngay sàmb ak lébu gi ñoo daje fii en direct ñëpp di ko déglu mais est-ce que gis nga fi xeex est-ce que gis nga fi kenn ku ku garde kenn te xeex football nañ ko fii démb amul coo amul kenn ku fi garde ah saka que yéen dañu xam sport. dañu xam sport looloo tax ñu créé loolu pour xool euh, jeunesse bi xool si loolu ah ASEC daje feexe kii euh, lëbu gi kàkkalam daje feexe euh, GAD Cité Takko ak ASEC ñoo waroon daje si senior bi mais si studio mais semaine bee lañ leen dajale fii ñu fubal après ñu ànd ñoom ñëpp ko fa fotowandoo si euh, vétéran yi te déggoo si benn coow lu tax ñuy def loolu tey ñii mënuñu ko def xoolal tey ñii li ñu indi nii. foog ne éducation bi tamit saa oui ça joue ça joue léegi léegi léegi boy yi amatuñu amatuñu benn éducation boo gisee tey jii man fi la fekk boo gisee man mii sax sa jëm nañ sauvé ak Mouhamed li mi jàmbaar la daw nañ dugg si pelouse bi yiñ fi sànn ñuy kii mais dañ dem bañ ñuy songu ñun dem ñu dañuy sauvé suñu bakken sama scooter bi sax dañ ko doon daal mais dama mujj leen lee bàyyi leen ma yóbbu leen ab blessé ñu soog ma bàyyi ma dem loolu moom ma si génne ah Mouhamed mii tey dafa sonnu ah ak ñoom seex ñi ñëpp ñoom ñoom Baye Fall ñoom kii boo léegi ñu ngi taxaw fii mais def nañ lu ne pour sauver kii bi mais mënuñ mënuñu ko c'est booy dañuy dem boo taxawee di gid dañuy sànni dañuy sànni ñun tamit ñu ne nañ nañ nañ nañ nañ mujj a replier est-ce que tey mënoon nañoo xam li ngeen yàqule hein ngeen yàqule non lii waxuma la sax dafa am bal équipe bu ville de Rufisque ay petite catégorie ak ñoo xam ne ñu ngi ko doon denc seen i seen i matériel si magasin yi fii ay eh, matoon na ay trente ballon fii amoon na ay écran plat ay bureau yooyu yëpp tey ji yàq nañ wax ak eh, Tëngéej FC tamit seen magasin bi ñoom ñëpp yàq nañ ñi fi ne woon yëpp yóbbu nañ bagage waa Agel tamit seen matériel mi ngi fi woon yëpp yàq nañ Mouhamed li mii Mouhamed li mii nga xam ne jàmbaar la liggéeykat la matériel bi yëpp tamit yàq nañ waaw nga foog ne tey sécurité bi du matoon est-ce que loolu yëpp dina am hmm? nga foog ne sécurité bi tey du matoon est-ce que loolu yëpp dina am mais sécurité bi nag man vraiment def nañ def nañ def nañ jéem nañ nag ñoom maa ngi fi woon di suivre mais jéem nañ jéem nañ lu bari mais booy boo demee ba dégg ni euh, dee am na rek loolu moo gën a moo moo gën a yokk affaire moo gën a aggraver ah, parce que booy yi ni ma leen gisee taxaw nañ ba nga xam ne da ngay ku génn ku téere fital sax danaan dóor ma ko waaw parce que dégg nañ am nañ ñu deele donc mënatuñu woon téye seen bopp loolu moo gën a euh, yokk affaire bi ak ak ak kii bi daanu ni moo gën a yokk affaire bi waaw ramp bi moo moo moo moo moo daanu loolu moo yokk gën a yokk blessé yi ba ñu déggee loolu nag si lañ gën a am fuggu kenn mënatu leen téye vraiment lii moom vraiment ñëpp ñu ngi koy métti daal te encore di jaale ñi nga xam ne tamit vraiment ñoo ñoo ñoo ñoo si génn àdduna seeni seeni seeni waajur waaw vraiment lii daal triste na daal ñuy ñaan yàlla mu gëcc ba faw ñu delloo waat xel yi ok maintenant waaw kon gars comme ni leen àndalee nag gis ngeen def naa gis li xew fi nga xam ne mooy stade Ngalandou Diouf woon leen gars taal nañ pelouse yi ordinateur yi fi nekkoon yëpp gars yi taal nañ ko taal nañ siège yi lépp lu fi nekk taal nañ ko fi nga xam ne mooy stade Ngalandou Diouf xeex bi metti woon na trop trop trop am na ay blessé mais tamit am na ay mort mais mënu leen wax exactement ñaata mort am mais am na ay mort kon boo gars yi comme ni ko gars yi waxee rek gars yi tëngeej ñun ñoo ko moom ñoo ko mën a defar non à la violence gars yi gën a leen am éducation gën leen yar ndaw gars yi loolu rafet la rafet la macha allah tey li fi xew moom ñëpp kenn rafetlu ko ñaaw na trop ba fu ñaaw yem kenn rafetlu ko kenn kenn kenn rafetlu ko depuis ce matin nag ñu ngi fi depuis si suba ba léegi ngi fi ànd ak yéen RSTV voilà RSTV loolu lu xew da ngeen koy ànd ak RSTV di ko seetaan ak RSTV mu lay koy jox en direct tey nag li fi xew franchement parlé metti na ma ba man mii di wax ak yéen gis xam ne lii moom sama tuuse tuuse na ma lool metti na ma lool mais tamit di jaale di jaale ñi ñi ñi ñàkk rek di jaale yal na leen yàlla xari àjjana yal na leen yàlla xaar àjjana metti na trop metti na lool